tër ubbi ko xëtam mu njëkk Sénégal Airlines le crash noonee la yéenekaay bi xëyee du nag roppalaan bu daanu mais ci gàttal compagnie bu daanu la Sénégal la yéenekaay bi bëgg a wax foofee état bu Sénégal moo jël dogalu daal di dakkal kon lii di euh, yëngu-yëngu yi Sénégal Airlines ndax daal dañu dem ba àttalatuñu compagnie bi démb la ñu ko xamle bokk na ci 65 milliards yoo xamante ne ji kon ngi gaañ amee nañ ko ne bor leneen bi xëy nañu ko xamal moo di nguurug Sénégal mi ngi ci pexe ngir taxawalaat beneen compagnie boo xamante ne ji mooy wutu euh, Sénégal Airlines ba tey xët mu njëkk observateur ñoo nga fay gis kàddu yi Serigne Mboup mooy administrateur bu Sénégal Airlines muy xamle ne nguurug Sénégal ak dogal bi mu jël jëm ci kon dakkal ay yëngoom moom administrateur bi ci gis-gisu boppam amul benn inconvénient boo xam ne gis nañu ko liggéeykat yi euh, yëngu ci wàllu transport aérien ñoom gis nañu ci inconvénient ba sax euh, tey jii danañu amal ab assemblée boo xam ne ci ni ñu ko l'observateur waxee ca la ñuy euh, xool ban dogal la ñuy jël enquête dina kaay moom it xëy ci mbirum Sénégal Airlines boobee ak la mu ca jàpp benn titre sortie de piste pour Sénégal Airlines maanaam compagnie bi wàcc na yoonam kon bokkatul Walfadjri moom it xëy dikk ci dogal boobee nga xam ne kilifay réewum Sénégal jël nañu ko moom Walfadjri donte jàppandegul ñu kon euh, wutali yéenekaay bi nga xam ne moo di La Tribune moom feneen la xëy génn La Tribune euh, xëy na dikk ci lu aju ci euh, Macky Sall mi gaañ di laaj ay explication jëm ci ñaari doomu Libye yi nga xam ne dañ leen di jëlee moo di leen indi Sénégal Mamour Diop Decroix moom nee na daal dossier bi bari na lu ci leerul Idrissa Seck it loolee la gis nee na ci biir ak ci leer ga ca am amu ci dafa am ay rëq-rëq yoo xamante ne ji moo am ci yëf yi li am ci mbirum Panama Papers Sud du Quotidien xëy na ci ak kàddu yu bawoo ci Moustapha Diakhaté mi ngi mooy euh, njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu ne doomi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi leen di tudd ci coowal fraude euh, évasion fiscale bi foofu euh, justice bu Sénégal moo ci war a oti saisir wu lijjantil ko boppam lu aju ci wàllu paradis fiscaux yooyu ak ni nga xamante ne ñoonu la ci nguurug Sénégal bëgg a taxawee Le Quotidien xëy na ci dellu si waat di ñu xamal ne ministre économique finance di Amadou Ba démb moom ak Michel xam ne naataangoom la janoon nañu ak taskatu Eh, moom ma ngay xeex ak ñi jiite réew mi ci kaw yi kàddu ci gàttal daal mbooleem li gars yi di wax di ko ndamoo mu di taux croissance économique bu Sénégal di wàllu mbay mi di wàllu PSE ak PUDC lépp moom borom grand parti weddi ko nee na fii ci Sénégal lenn rek moo fi émerger muy wax ju bari loolu dong mais émergence émagu fi aju ci wàllu bourse de sécurité familiale ak eh, couverture maladie di universel El Hadji Malick Gakou gis ne euh, politique moom moo ci laxasu waxtaane wàllu politique ak direct info mi ñëw ak ñun ci kii di Abdoulaye Wade ak Macky Sall référendum yi ñu weesu le journal bi di laaj ndax fi mu mujjee message bi ci askan wi euh, yónnee ndax Abdoulaye Wade ak Macky Sall jàpp nañu ko bu baax a baax nañu dem ci grand place Pape xooli fa tiis yi nga xam ne am na fa ñu ngi koy waxtaanee démb ba léegi mu di euh, Bounama Touré maanaam tubaabu joor mi génn àdduna grand ñu ko tàggee moom Bounama Touré di tubaabu joor ñu ko noonu la ko journal bi waxee beneen yéenekaay bu ci dikk moo di sunu lamb xëy ñu xamal ne Touba bu joor génn na àdduna moom Touba bu joor tàggu na arène bi kii di Modou Ndaw Tyson di xam le ne daal lamb ñàkk na kon ki euh, champion tey jii la rob bi fële ca euh, hôpital principal dinañu ko jébbal boromam ci Touba ba tey suñu lamb moo ñu ko wax libération dellu si waat dañu xamal moom libération nañu njabootuk lamb gi li ñu yàgg xeex mu di arène nationale Touba bu yàlla def na du ko gis